lay ñaan njëkk foire bii boo ko tasee di nga lor ñu bëri ci biir dëkk bi ñu ngi lay ñaan njëkk Ousmane Sonko bugguñu fitna ci biir dëkk bi jàmm moo fi arrangé ñëpp ar jàmbalaa lay oo bugguma fitna ak kenn ci biir région bi nag Ousmane Sonko yow yay suñu maire ñu lay tallal loxo di la ñaan nga may jàmm ci biir dëkk bi bugguñu fitna Ousmane Sonko ñu lay ñaan jàmm nga may ñu ñu suñu liggéey yow la fi yàlla taaj bu ñu fitnaan Ousmane Sonko ñu ngi lay ñaan nga may ñu jàmm gannaaw yàlla ak yonent bi ñu ngi lay tàllal loxo di la ñaan nga may ñu ñu suñu foire loolu rek lañ lay ñaan ndax fitna arrangé wul kenn ci biir région bi tey ñun ci développement nga ñu fekk ci développement lañu ñu a dox foire képp ku ko fi organisé foire rek ngay dind foire fi sabilillah depuis ma juddu ba tey mosuma koo gis. léegi problème bi lan la en bi daal dañ ma oo police ñu ne ma dafa dafa oote ne dama def erreur ci yi ndax binduma fa foire commerciale papier bi dañ fa def foire pré kii foire INCO avec kii nu mu ko tudd foire ak INCO exposition foire ak INCO. foire nag foo ko dégg rek commercial moo tax a xaw ma woon ni foire buñ koy bind dañ ciy def comme dañ ciy def bisabilillah